jërë ngeen jëf euh, mbokk internet yi dal leen nag euh, jàmm rek la sa gën a fës euh, rek mu doon rek si jëm si wàllum napp gi mu mel na nag loolee parce que dara sàkku daa dina yàgg boobu ba tey bëgg rek am liste bu xamante ne si rek moom la ñu autorisé ñu war a rek napp suñu waax yi waaye nag ba nu génne liste boobee am na leneen luñ sa nemiku am na 49 bato yoo xamante ne si rek nekk su suñu waax yi di napp rek nu mu leen neexee te yooyu yëpp rek amuñu benn licence. di napp su suñu waaxee di sàcc jëni nekk ay forot di ko yóbbu si yeneen réew loolu nag mu doon mbir mu day waaru xamante ne si na rek yàggoon nañ ci di si topp bëgg a xam an nan yooye ya nag yàlla waaye nag mujj nañ ko génne mu doon ab liste xamante ne si rek 49 xamante ne si rek ña ngay napp te amuñu sa benn pour l'essence nekk ay forot rek di napp suñu waaxee di sàcc rek di yóbbu mu doon mbir xamante ne si rek jamono ji gouvernement bu bees bi fas kee na rek jubbanti mbir yi nga xamante ne si na moo day rëq-rëq yi fi am ba tax na rek yooyu yëpp rek commencé di feeñ jamono ji ah, si jubbanti